di jur ay conséquence euh, conséquence bi tamit euh, bokk na ci absence su Sonko bi mën na tax du mën a def appel parce que bu fekkee dañ la àtte àtte bi neexu la war nga mën a dem ci cour yi ñu àttewaat la mais bu fekkee ne ñëwuloo ci audience yi su boobaa ni ñuy privé say avocat ba duñu mën laa plaider duñ la mën a layal ak lu ñu mën a dékk ci biir salle bi duñ la mën a layal noonu aussi dañ lay privé appel ba doo mën a def appel maanaam doo demaat forcément da ngay dem tëddi te li gën ndaw ci li ñuy war a tëdd euh, bu dee ne condamné nañu la ci chambre criminelle fukki at la te loolu euh, baaxul ci carrière politique gu président Sonko baaxul ci avenir baaxul ci neexut sax dégg nag ci ñi nga xam ci ni ñoom ñooy ay soppeem donc euh, attendon que la situation la situation change peut-être par euh, repositionnement wu leader bu Pastef bi di Ousmane Sonko parce que tout à l'heure laaj naa laaj naa euh, maître ñu ngi ñu ngi ak ak Habib Faye Habib euh, Faye un confrère journaliste à la télé Futur Média TFM donc Habib ñu ngi ñu ngi lay nuyu en tout cas yaa ngi en direct ma bàyyi la nga ak ñu lay seetaan ñëpp fii nga joxe sa jàngat si situation tey Euh, Waly maa ngi lay fay bu baax a baax di fay aussi tamit euh, internetu Sénégal set yëpp mm-hmm. ah di wax ne aussi tamit euh, ci laaj bi rek lu ñu mën a tënku ndax ñi ngi doog reprendre li nga xam ne moo di séance bi xam nañ tamit lan moo waraloon ñu suspendre ko ndax li ko waral bokkoon na ci ñii di avocat yi layal défense bi ñoom dañu sàkk woon mm-hmm. ngir ñu renvoyer li nga xam ne moo di procès bi ndax gis nañ ne kii di Ndeye Ndiaye moom ci boppam dafa wan lor tollu na ci juróom-ñetti weer ci seen kàddu waral na ñoom it ñu sàkku li ni mel ba nga xamante ni dina mucc ak jàmm mm-hmm. ngir ñu mën a dooraat lii di euh, procès bi mois de juin voire mois d'août ñoom loolee lañ euh, tënkoon mm-hmm. ngir rek jébbal ko ki nga xam ne moo di juge bi mm-hmm. li ni tamit juge bi dafa mel ni nopp tëx la leen jox ndax tamit euh, firndeel ne laataa loolu kii di Kélé door moom kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko bokkoon na ci ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko mi ngi jéggalu ci li mu ñàkk a teew ndax tamit condition yu war ngir mu ñëw ci procès bi mu ne yooyee moom moo warut moo tax ñëwut waaye tamit ñi ngi jéggalu muy ce qu'on appelle excuse mm-hmm. excuse yooyee teg nañ ko ci table juge bi mais nekkul loo xam ne c'était formel c'était par écrit xam nga yoon moom wàllum bind rek la la kii nekkul kàddu et cetera waral na tamit juge bi ne ko naam nangu naa kàddu yi nga xam ne wax nga ko mm-hmm. waaye tamit formelul waral na loole du loo xam ne it des nañ koy mën a nangu mm-hmm. kon Euh, lii di mbir mi dafay nekk ce qu'on en état mm. état boobee moom mooy waral ne tey kon procès dafay am mm-hmm. dañuy atte layoo kon dina am mais layoo bi ngir mu am faw ñi nga xam ne ñooy avocat yi layal Ousmane Sonko mm. article 308 daf leen aaye ñoom ñi nga xam ne seen client teewul ci biir salle bi ngir ñu mën a de mm. waral na ñoom it ñu taq ne kon amuñu lu ñuy def ci salle bi ñu génn ah. dem salle bi gedduñu yoon moo leen mayul ñu plaider mais tamit damay dégg sànq bële ñu naan avocat Ousmane Sonko yi dañu gedd budde nañ saal non non budde wuñu mënuma jàpp ne budde la parce que tamit la loi elle est dure mais elle reste la loi mhm. raison pour laquelle ñoom dañ ne leen sans la présence de votre client vous ne pouvez pas plaider mhm. am nañ droit toog ci salle bi am nañ droit tamit génn ci salle bi bu ñu toogee du ñu plaider bu ñu génnee du ñu plaider mhm. loolee la la yoon wax moo tax ñoom it ñoom ñu génn ndax tamit ñoom ay kilifa yaa ngi comprendre ay acteur de la justice lañ. xam nañ li nga xam ne yoon wax na ko ñu génn ànd dem waaye lu ñu gënoon bëgg ñoom ci seen bopp mooy ñu plaider Ousmane Sonko teew mais tamit condition yi moom moo réunirul ci seen kàddu moom moo waral seen i client ñëwul léegi nag kii di juge bi moom mii di Moustapha Fall nekkoon tey jot na ñu war a mën a àtte mu suspendre li nga xam ne moo di audience bi ñu dem ñëwaat ba nga xam ne léegi avocat yeli dañuy yëy yàbbi ñu déglu leen ñoom ñu indi seen i preuve comme ni mu demee woon ci procès Mame Mbaye Niang bi Ousmane Sonko ñëwulee nii noonu rek la dem parce que boobee dañu gis ni ñii di avocat Ousmane Sonko yi Ousmane Sonko teewul woon ñu ne leen kon kat article bi lii la wax la mu wax kon des nañ koy jëfee mu ne leen kat kon yéen a nekkut ci yoon ñooñu ne kon dañuy génn salle bi. Mhm. bii it même chose la même chose se répète comme on dit. kon l'affaire a été retenue fi mu ne nii euh, boo déggee ne rek l'affaire est en état rek mooy c'est retenu. c'est retenu donc fi mu ne am njort ne dinañ ko àtte tey. dara ñu ngi a euh, tey dara mun dara mun na bañ a am. ndaxte tamit ñi war a plaider bu ñu fàtte ne pôle d'avocat ci kaw loolu tamit plaidoirie yi dafay bëri. bul fàtte nee nañ la sa dossier soixante onze pages yoo xamante ne des vidéos ak ay audio yoo xam ne mi ngi ci biir bu ci nekk tamit dañu war a apporter pièce justificative bi et cetera témoins yi aussi tamit ñoom euh, ñi ngi fi am na tamit yenn témoins yoo xam ne mënuñoo ñëw ki mel ni MC Niass nee nañ mënul ñëw ki mel ni Mamour Diallo aussi tamit mënu mënu mënul ñëw mais teewul tamit ñoom bokk nañ ci euh, témoins kon benn benn benn euh, processus boo xamante ne nii dinañ ko jël dina jël temps ça peut en longueur mais mënuñu ko épuiser aujourd'hui that's impossible comme on comme l'essentiel mooy comme ñu suivre le procès Karim ñu suivre procès Khalifa maanaam dañuy dem jusqu'à ce que ñuy épuiser toutes les pièces mhm. bu boobaa nag juge bi moom it mën a dégluwaat ki nga xam ne moo di procureur bi parce que n'oublions pas que ne moom aussi tamit dina jëlaat kàddu ci séance bi waxaat moom aussi bu ko defee ñu ne procureur na temps pour procureur lii nii la soxla lii la wax et cetera avocat lii la ñuy soxla daan bi ndàmpaay bu fekkee ne daan am na ñee tamit compagnie amuñu plaidoyer ñii lii la ñuy wax léegi nag juge bi ci boppam moom mooy dajale yooyu nga xam ne ni formuler nañu ko ci ay demande moom mu xool lan la yoon wax bu fekkee ne diw moom moo taq wala diw la ñu taqal wala diw taqul. da nga wax ji bu boobaa nag mu àtte ko teg ko ci yoon. Habib par rapport ak projection vidéo yi gars yi doon wax salle bi naka nga ko gisee formation. salle dañu teg la rek mais jàppal ne ba léegi ne amul vidéo buñ fi projeté amul mais matériel bi mi ngi am place ci lu ñu gisagum. ci biir salle bi ñun ñu fa nekkoon. Mhm. mais amagul lenn loo xamante ne ni teg nañ ko fa parce que salle bi ni mu doon mel noonu la mel. Mhm. salle 4 ku ko xam xam ne carrément pièces yooyu foofu la mës a nekk mësul dañ. Mhm. parce que c'est normal tamit mu nekk fa loo xam ne tey lañ ko indi wala bii passé lañ indi installé ko fa non bi loolu yàgg na fa pour ñu yàgg dugg ci biir salle salle d'audience yi xam nañ ne loolu moom mi ngi fa vidéo yu ñu wax benn vidéo projeté wuñ ko fa projeté guñu fa dara donte tamit nee nañ yi moom disponible na wax dëgg fa yàlla. d'accord sa réaction par rapport rek baal ma rek par rapport ak euh, journaliste Serigne Saliou Gueye nga nekk mu nekk aussi sa confrère directeur de publication Yoor Yoor euh, ji voilà sa réaction si loolu rek. Habib journaliste dañ ko war a bàyyi la liberté liberté de presse dafa am nañu bàyyi journaliste ñu liggéey loolu mooy lu ñu mën a wax ndaxte tamit euh, ñoom def ñu leneen lu dul seen liggéeya ah. ñun journaliste yi la ñuy àndal muy taw journaliste la ñuy àndal muy naaj journaliste la ñuy àndal journaliste yi nañ leen bàyyi ak seen piir ak seen féexug baqan ñu liggéey ñoom it ñu teg ko ci yoon lépp li nga xamante nit moo di la bonne information ñu relayer ko ñun journalistes yi waaye bu ñu kenn tekk ci suñu liggéey bu ñu kenn xoqatal ci suñu liggéey lu ñu lu ñu tax jóge suñu kër ak tamit li tax ñu soobu si suñu métier lenn dong la moo di joxe la bonne information d'abord le journalisme c'est une passion avant d'être un métier métier boobu mu nekk donc un plus la dans notre vie kon donc nañ ñu bàyyi ñu exercer ko ci jàmm sans carcan yaa ngi sans rien maanaam bu ñu enfermer nañ ñu bàyyi ñu liggéey ak suñu bànneexu bakkan suñu féexu bakkan waaye ñun tamit nañu xam ban role la ñu am ci askan wi te lépp lu ñuy wax nañ ko saytu nañ ko teg feneen ñun amuñu parti pris faraluñu ma Demba faraluñu ma Samba ñun xam nga ñan lañ faral askanu Sénégal lañu faral ak dëgg fu dëgg nekkul nekkuñu fa information bépp bu ñuy joxee ce sera une information positive boo xamante ni dëgg la wasalaam. jërëjëf Habib maa ngi lay gërëm bu baax en tout cas di kontaan ci sa intervention voilà euh, Habib Faye Euh, bu TFM moom ngeen déggoon tout à l'heure euh, clarification yi mu def ndax mu ngi woon ci salle bi waaye aussi euh, li nga xamante rek noonee la informé mbir mi mu nekk lu ñuy rafetlu lool suñu confrère et Habib euh, si fàttali ni ba tey comme ni ngeen ko déggandoo noonu euh, audience bi nag euh, daal nañ koy retenir maanaam l'affaire a été retenue donc juge bi mu ngay woyal liggéeyam. comme ni nga ko waxee nag maam maanaam avocat yi gedduñ parce que jàpp na ne comme comme ni ko benn article bu code de procédure pénale waxee rek bu fekkee ne kañuy àtte ñëwul donc euh, yoon dafay tere rek euh, avocat bi yi nga xam ne ñooy layal Ousmane Sonko daal di di pla def plaidoirie donc loolu duñ ci am duñ am possibilité pour def loolu moo waral ñu génn ci salle bi mais moom moo buddee daal d'accordul si ne gars yi dañoo génn salle bi waaw bon euh, loolu la moom mooy li am sax nag exactement comme bu ñu toogee bu ñu nekkee ci salle bi bu ñu fa nekkul yëpp du ñu mën a yëy yaa bi loolu ay ay ay seen décision lay euh, dépendre. baal ma ñu dem mu Moussa Sow bu COJER def na ma signe. exactement hmm, nee na ñu ñu ñu jël ko. ñu mën a xam alors parce que waaw xam nga xalaat yi maam kenn ku ci nekk rek. Euh, dafay baax nga wax li nga xamante ni moom nga gis ci mbir mi mais surtout dafa war a am l'équilibre l'information ñu dem jëli ji Moussa saw donc Djily mbay bu fekkee yaa ngi ñu teelu rek ñu préparel ma élément Moussa Sow Cogère comme ça ñu jël ko en direct euh, si Sénégal 7